أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey rek ñu nekk ci suratul baqara ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala cey ñu war a jël aaya 270 xam ngeen ne tafsir passé yépp par benn aaya la ñuy jël li ko waral nag mooy toll ci tomb yoo xam ne bëgguñu ko përax përaxee comme dañuy góorgóorlu ñu bëgg dars buñ ci jël rek ñu jéem ci sunu kemtalaayal kàttan jéem a wax sunu dégg-dégg ak sunu xam-xam ak li ci borom xam-xam yi wax yi nga xam ne ñoom lañ jot a yër li ñu wax ci aaya boobu su ko defee tey ñu jël aaya bi borom bi subhanahu wa taala di wax wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha yalamuhu wa ma li zalimina min ansar aaye boo xam ne liñ ciy jëlee ci ay njàngin li ci njëkk mooy borom bi subhanahu wa taala mooy xemmem loo jaamam yi ci saraxe ci joxe lu mu néew néew danañ gis loolu ci aaya bi lu mu néew néew kenn du wax ne man damaa ñàkk ba du ma mën a joxe ndax borom bi subhanahu wa taala ci aaya bi wax ji mu wax mooy wane ne ku nekk ci ñun am na wàll ci joxe war naa joxe ñaareel bi mooy at tahzir min ar riya aaya baa ngi mooy tandiku loo gistal di joxe ba pare di ci wone sa bopp pour ñu gis la wala ñu dégg la wala ngay joxe fekk li ngay joxe li nga bëggatul la wala ngay joxe fekk da ngaa ñàkk pexe moo tax ngay joxe loolu lépp aaya bi daf ñu koy tere bu ñu ñëwee ci yaxu aaya bi danañ fekk borom bi subhanahu wa taala muy wax walla borom xam-xam yi di yaxal aaya bi ne buñ ko bëggoon wutal mawdu buñ ko bëggoon utal si siise aaya bi kon lan mooy nekk mawdu bi mooy al infaq bi kulli al mustawayat wa darajat wa sifat fi ilmi llahi azza wa jal joxe ci mbooleem ay darajaam ci mbooleem tolluwaay yi ci mbooleem xeet yi ci mboolem daraja yi ci mboolem melokaan yi nu mu mën a mel danañ ko fekk fi ilmillaahi ci xam-xamu yàlla ci xam-xamu yàlla subhanahu wa taala joxe ci mboolem étape yi ci mboolem daraja yi ci mboolem melokaan yi ci mboolemi xeet yeeg façon yi loolu lépp buñ ko boolee danañ fekk génnul ci xam-xamu yàlla subhanahu wa taala bu ci waay def yàlla xam na moo tax mu ne ayatu nafaqa bépp xeet joxe tunfiquha bu doomu aadama joxe saxiir bu ndaw kabir bu rëy jaliya bu tuuti bu mag aw xaqiira wala bu néew buy doyadi sirran da ngaa joxe ci nëbbut wa alaaniyan da ngaa joxe ci feeñ yooyu yëpp danañ fekk ne umpul yàlla subhanahu wa taala umpul yàlla joxe bi nu mën a mel dafa tuuti dafa bëri da ngaa làqatu def ko da ngaa feeñ def ko loolu lépp umpul yàlla subhanahu wa taala lu tax yàlla moo ne wa ma anfaqtum lépp lu ngeen mën a joxe min nafaqa ci xeetu joxe yi leen moo leen di won ne yàlla xeebul lu ñuy joxe mooy min gi ci aaya bi min bi boroom xam-xam yi dañ naan min boobu tufiidul istigraq mooy lan bépp xeet nawun bépp façon mahma qallat lu mu néew néew yàlla xam na ko lu mu mel yàlla xam na ko nu mu xeetoo yàlla xam na ko daraja bu mu toll yàlla xam na ko dangaa nëbbatu jox ko yàlla xam na ko dangaa feeñ jox ko yàlla xam na ko danga cee wane sellal yàlla xam na dangay joxe ngir gis leen ma yàlla xam na dangay joxe ngir dégg leen ma yàlla xam na ko wa ma anfaqtum lépp lu ngeen mën a joxe min nafaqatin ci xeetu joxe yi nu mu mën a toll borom bi xam na ko boo joxe woon benn fistine am ku joxe fee million wala nga joxe ci secret wala nga joxe ci feeñ yooyu yépp wala kee joxe alal xaalis kee joxe ceeb ka la joxe suuf ka la joxe ndox lu mu mën a mel ci xeetu joxe yi ci nu mu toll ci melokaan bi loolu yépp fi ilmillahi subhanahu wa taala mi ngi ci xam-xamu yàlla dara réeru ko ci min boobu ci aaya bi loolu lay tekki min nafaqa lépp lu ngeen mën a joxe nu mu mën a toll loolu la min boobu di tekki man anfaqa nafaqa képp ku joxe fi sabilillahi ci yoonu yàlla kooku joxeem bi lu muy jur mooy itma anna ila allahi yalamu wa haza yubciduhu an innifaq képp ku mën a joxe te dara taxul nga joxe lu dul yaa ngi joxe ci yoonu yàlla subhanahu wa taala sa xel day dal sa xel su dalee ban bénéfice ngay njëkk am mooy xel gu dal gi dalay soril ak naafiq parce que bi ngay joxe yàlla rek moo tax joxe joxe woo ba pare deltu ginnaaw naan mais lu tax waxuñu ko ci rajo bi est-ce que bind nañ ko ci registre ñi joxe lu tax joxuñu ma russi mais lu tax waxuñu ko mais mais mais yooyu yow mi joxe ngir yàlla sa xel day dal daf lay soril ak naafiq mais ki joxe ngir leneen yii yii ak yeneen yi des mooy wane ne xelam du dal non du ma dem ba ñu wax ko non sama xel du dal lu dul ma ñu jox ma rosi non lu tax yooyu noonu mooy tax nga am problème fa innal mu'min naka ku gëm yàlla jullit iza anfaqa nafaqa fi sabilillahi su joxee dara ci yoonu yàlla mutma'innun xelam day dal ashaddat tumaanina ngën gaa tari xel mu dal xelam day du am benn egg na eggul jël nañ ko jëluñu ko gërëm nañ ko gërëmuñ ko wax nañ ko waxuñu ko bindal nañ ko russi joxuñu ko russi moom xelam day daal lu tax ila anna allaha yaalamu ndax yàlla xam na te yàlla tax yàlla xam na maadaama moom yàlla xam na yoonam ci keneen mbokk yi su yàlla xamee looy xalaat keneen ah di nga gis ku naan ah yàlla xam na ko ba pare waaye nag di amatul njëriñ yàlla bu xamee jeex na ku tax ngay def jeex na moo tax sa xel di dal mu ne wa haza loolu noonu yubiduka daf lay soril ani nifaq ci nafiq sikki sàkk yooyu daf lay soril nafiq waaye daf lay soril almad tagg tagg diw waaw jaajëf diw cëy bu doon du moom cëy nangam nga commencé yëkkati mbagg nga commencé ngandal garaam boobu nga commencé defar koppati bi commencé tiyaaba bi yëpp daal di dañ nga perte wa haza yuzahiduka fi an yuktaba ismaka ma al muhsinin ndeysaan nga joxe ci yoonu yàlla bokk na ci lim lay defal mooy dafay génne tilim tilim yi ci sa xol ba ñu jël malaaka yi daal di jël seeni bindukaay daal di bind sa tur ci ñiy liggéey di rafetal di def ngir yàlla am na benn fan benn bis fii ñuy jàng kenoy lislaam yi maratibu diin kam maratibu diin maratibu diin kam bismillah ah abadan kam maratibu diin bismillah abadan kam maratibu diin abadan maratibu diin abadan tontu nga ba pare maratibu diin salaasa ñett la al iman al islam al ihsan ñett yi kese la mooy maratibu diin wuloowul ak nuroowul ak arkaanul islam wuroowul ak arkaanul iman nuroowul ak arkaanul ihsan yee ñooy xamsa sitta be waahid amma maratibu diin salaasa islam iman ihsa islam ihsan iman alqalb xol bi mooy liggéeyal yàlla islam cër yi ñooy liggéey ihsaan mooy li xol bi gëm cër yi di ko liggéey na rafet gis nga même alal ji boo koy joxe in nafaqa bi ñuy wax da nga koy joxe joxe bu rafet ni kañ lay rafet mooy yi ñu wax di ko yàq yëpp da ciy génn wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin wala ngeen nëzër benn nëzër nëzër ci lislaam am na borom xam-xam yu koy dàq ga man gis naa sax ci suba bi may liir dars bi borom xam-xam bu ne nëzër bokkaale la waaye nëzër fii la ko lislaam fekk bu ngeen jàngee alxuraan li ngeen gis yaayu Mariam dafa nësaroon am lan doom bu góor pour jox ko jaamukaay yàlla bi waaye mu am jigéen bu ngeen jàngee ci atal alxuraan di ngeen gis Mariama ci boppam ba mu amee doom yàlla da ko ne boo demee dëkk ba nang leen ne inni nazartu lirrahmani sawman yooyu ñoo fi jiitu lislaam kon nazar fii la ko lislaam fekk bu ko fi jiitu nit ñu baax ñi daan ko defal yàlla kon ci diine ji la bokk dafa am boo xam ne sharia la islaam nangu na ko am boo xam ne sunna la am boo xam ne mustahab la am boo xam ne makruux la am boo xam ne xaraam la noonu lañ ko toppee day laaj nag xam naa das du xet lan mooy nëzër mooy lan mooy iltizaamul mu'min bima lam yalzimuhu bihi ash-shari' nëzër mooy nga sas sa bopp ah kon seede dañ koy joxe de ah ah macha allah gars yi tey ay seede am na de question yi ko turbe rek jox la seede yi ñoo ngi ñaanal borom cadeau yi yal na leen yàlla fay yal na ko yàlla def fi misaani xasanaatihim nazar mooy nga warlul sa bopp lu la sharia tegul loolu mooy nazar mooy nga teg sa bopp loo xam ne sharia tegu la ko insha allah man de suba bëgg naa woor ngir sant yàlla xam nga woor suba islaam sant la ko soo ko waxee nag nëzër bi léegi tegu na sa kaw nga ko war def am na nëzër boo xam dañ la ko tere mooy nëzër naa suba dem ànd ak xale bu jigéen bee njaaloo ji ak moom loolu daf xaram boo nësëree pour topp yàlla yonent bi nee na defal boo nësëree pour mooy yàlla mu ne bul mooy borom bi subhanahu wa taala mu ne su ngeen lépp lu ngeen joxe ci nu mu mën a toll ci li ngeen joxe wala ngeen yéene mooy nësër ak moom it nësër bi nu mu mën a toll benn waaye ngi ni boo xam ne sax sun nazara in shafa allahu ibnahu la yuwazzia anil lahmi al fuqara benn waaye ngi ni bu ne sama doom dafa feebar bu ma yàlla dimbalee ba xale bi wér dana jënd yàpp togg ko saraxe jox ko ay nit nee na haza nawun nee na façon bi nawun benn xeet la boo xam ne min al infaaqi ci joxe la bokk lakinnahu infaaqul mashrut li waa ji wax su ma yàlla dimbalee ba sama doom wér dinaa jënd yàpp joxe ko est-ce que du joxe ci nafaqa la bokk waaye joxe la boo xam ne dafa am charte borom xam-xam yi dàq nazar bii la ñuy def bu mel nii la ñuy dàq ndax nee nañ loolu bokkaale la da ngaa bëgg a imposer mais du conditionné mais du condition xeetu jaamu yàlla la mu ne al infaqul awwal bu fekkee biñ doon wax sànq joxe bu njëkk bi infaaq boo xam ne bi duuni charte boo xam ne amul benn charte boo ci làq moom moo gën ci joxe bu mujj bi joxe bu njëkk ba làqoo ci dara dangaa joxe ngir yàlla moom moo gën bu mujj bi ndax boobu tegoo ci benn charte tegoo ci dara boobu xam nga ne sa doom feebar na baay ji xam na ne doomam dafa feebar xër na trop pour doomam wér waaye mu joxe ci xolam mu yéene fa ci sama sarax bi maa ngi ñaan yàlla sama doom ji yal na ko yàlla wéral boobu moo gën téeméeri yoon charte bi nga wax ci sa gémmiñ maa ngi joxe lii walla bu yàlla defee lii ma def lii bi nga joxe teew waxoo ci dara da nga bàyyi xel mi rek ak yàlla booboo gën téeméeri yoon mu ne wa ma anfaqtum lépp lu ngeen mën a joxe min nafaqatin ci xeetu joxe yi aw nazartum wala ngeen nazar min nazarin ci benn nazar bu mu mën a doon fa inna allaha yaalamuhu yàlla xam na ko baat bi fa inna allaha yaalamuhu war na dalal bépp xelu jullit lu tax lu tax ah ndax xam nga ne say jëf du neen bu dee dërëm la bu dee ñaar dërëm bu dee yére bu màgget bu dee bu dee fa inna allaha yaalamuhu yàlla xam na ko comme yàlla xam na nag yow amatuloo problème yàlla moo tax ngay def yàlla xam na lisa qaalu asadaqa taqa'u fi yadi llahi qabla an taqa'u fi yadi lfaqir moo tax boroom xam-xam yi ñu ne rot na ci riwaaya ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kiy joxe balaa ki muy jox jël li mu koy jox kan la ko njëkk a jox ba pare naan la gis nga nekk yow miy joxe bi ngay dugal sa loxo di jox waa ji fekk jox nga ko yàlla ba pare balaa waa ji di ko jël yàllaa ko njëkk a jël ndax bi nga déggee wala nga jàpp ne war ngaa joxe rek ku tax ku tax nga dégg wax ji lan moo dugg sa xel ak sa xol ba nga dellu kër ga wala nga dugal sa loxo sa poos wala ku tax kon yàlla nga jëkk a jox balaa ngay jox waaj moo tax ñu ne as-sadaqatu sarax taqa'u fi yadillah ci loxo yàlla lay njëkk a tàbbi qabla an taqa'u fi yadil faqir balaa muy ñëw ci loxo miskin bi laaj wala ki faqir bi ñàkk beneen riwaaya yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bakkiru bi sadaqa fa innal balaa laa yataxaatuha teel leen génne sarax bakkiru baatu bakkiru fan la jóge mu bakkir suba teel na li ngay joxe na teel lu tax ndax balaa bi yàlla di wàcce ci journée bi mënul jéggi sarax bu balaa naroon dal ci yow ci bëccëg bi fekk génne nga sarax ci fajar gi sarax bi day téye balaa bi ma ne bu la musiba waroon dal ci journée bi fekk xëy nga fajar saraxe sarax bi da koy téye du wàcc sa kaw moo tax mu ne bakkiru fi sadaqa teel leen génne sarax teel leen koy joxe lu tax fa innal balaa la yaxaatuha balaa munu ko traversé munu ko pénétrer ba mu dal ci sa kaw yor naa benn téere boo xam ne mi ngi tudd sarax day baare téeméeri musiba noonu la téere bi tudd téere bi mu ngi tudd sarax day baare téeméeri musiba te benn bu nekk nas la benn bu nekk xadis la sarax li muy li muy li mu lay dindil mën na téeméeri musiba kon bu julli di xamoon li kon joxe ci yoonu yàlla kenn du tàyyi kenn du sonn ixwatal iman allahu jalla jalaaluhu sunu boroom ala uluwi makaanihi ci barab yu kawe pee yu sell ya ya mu nekk ak kàttanam moom yàlla kuy gërëm joxe la bis bu nekk di gërëm sarax léeg-léeg mu gis ne yow sax danga sori dëgg waaye saraxe nga ndeysaan mu yërëm la ci joxe boobu nga joxe mu jéem laa indi ci dëgg léeg-léeg mu gis benn musiba mi ngi lay yoot xaw na laa jege nga xëy saraxe yàlla daal la koy fenqal wala lenn loo ragal sax nga saraxe loolu nga ragal yàlla dindil la ko wala ay noon ñu ngi lay fexeel di la xaar nga saraxe yàlla dàqal la ci sarax boobu noon yi wala nga am ku feebar nga saraxe yàlla saafara feebar bi feebar mbokk yi sarax amul lu mënul sarax amul lu mënul loo ragal mën na la ko dindil mën na la dindil feebar mën na la soril ay noon mën na la aal ci balaa mën na la aar ci ay musiba ak ay jàngoro amul lu sarax mënul déggu yonent bi ne la feebar day day baare bal sarax day baare balaa ba du la laal ndeysaan moo tax ñi xamoon ñoom xam ñi xamoon xam ñi xamul ñoo xamul waaye ñi xamoon ñoom dañ doon njëkkante mbiru joxe ci yoonu yàlla subhanahu wa taala kenn mënu la aar ku dul yàlla moo tax yonent bi ne joxe leen génne leen sarax mu ne wa sadaqatu sirri tutfau gadabu rabb tutfiu gadabu rabb sarax bi nga joxe ci suuf li nga joxe ci suuf gis nga bokk na ci lim lay defal mooy dalay dàqal meru yàlla allahu akbar waaw allahu akbar luy dind meru yàlla ku tol na yàlla mere la walla mere sa mbokk walla walla nga xam ne lii boo ko defee mer bi la yàlla mere woon deñ loolu jar na def wala jarul def jànguñu fenn ñu ne julli day dàq meru yàlla aji màkk day dàq meru yàlla woor day dàq meru yàlla waaye jàng ngeen ñu ne as-sadaqatu tutfi'u ghadabu rabb sarax day fay meyu meru borom bi du koy dindi kon sarax nan la war a toll ku nekk na ko imaginer nan la war a toll luy dindi meru yàlla loolu nan la toll nan la war a toll allahu akbar wa kam min bala'in ñaata musiba nga gis sarrafahu llahu bi sadaqa yàlla dindee ko sarax wa kam min maridin ñaata nga gis ku feebar ñu faje ko sarax looloo tax yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam mu ne daawu mardakum bi sadaqa faj leen seen ñu feebar ñi ci saraxe ndeysaan faj leen seen ñu feebar ñi ci sarax daawu mardakum bi sadaqa faj leen seen ñu feebar ñi ci di saraxe ah seen way feebar yi nit ñu feebar yi yonent bi ne na ngeen leen fajalan sarax allahu akbar ñaata ñaata nit ñoo feebar ci Sénégal ñaata suñuy mbokk ñoo feebar waaw waaw gisaanekat yi waaw hadis yi li ñuy jël rek waaye na nga saraxee nangam saraxee nangam di la jéem a tuur lëndëm saraxeel ginaar rek sarax fekk sarax rek au lieu ñu ne la saraxeel rek da ngay wér ah seytaan waaw non xam nga ñoom yi ñu ciy dugal xam nga xam nañ ne li yonent bee ko wax mais suñ la ne dama nga saraxee di day yomb xam nga sénégalais buggul lu yomb dañ laal dama nga jënd nag bu ñuul kuk gis nga ñuul bee kuk bi mooy tax yow nga dem de kii waaw kii kii kii waaw da koy dañ koy garaawal wala ñu ne xar mu weex tal maa buñ la ne waaw dama nga saraxe rek day Sénégalais bëggul lu yomb benn waaye ñëw na fekk benn oustaz toog ma ko dama bëgg nga ñaanal ma dama bëgg a tukki quoi mu ne ko bismillah daal jàng ayatul kursi mu ne ko mu ne ko lii rek defal ma ñaan waaye mu ne ko lii rek xool daf ko soofal parce que lan dafa bëggoon mu ne ko da nga bëgg a tukki mu ne waaw mu ne da nga bëgg nga indil ma juróom-ñeent yu weex soo ko waxee loolu mu dem léegi balaa suba mu indi ko yonent bi nee na sarax day faj feebar moo tax saa yoo demee ci xërëmkat yi ñu ne la saraxeel waaye duñ la yem ci saraxeel saraxeel ay nàkk dégg nga nàkk te na nga ko sarax rek ay xale gis nga na nga jënd juróom ñaari mbax na yu weex nga bàyyi ba jour vendredi nga dem sarax maanaam sarax bi rek lañ la war a wax mais duñ ci yem foog ñu laq ci loo xam ne yow mii da nga ne ah waaw li parce que buggoo lu sedd mais gis nga yonent bi nga xam ne yàlla daf ko yónni woon pour lépp sedd te ne saraxe leen rek loo saraxe baax na daaw mu ne faj leen mardaakum seen way feebar yi bi sadaqati ci sarax mbokk yi sama seede yi li yëpp benn nit moo ko moom wala dañuy koy séddale par benn ok biñ commencé tafsir bu fii ñu yem ah loolu li kan garaaw na sama laaj bi mooy lan moo tax ñu tuddee as sadaqa sadaqa lu tax ñu tuddee ko noonu lu tax ñu tuddee as sadaqatu sadaqa bismillah
taxiru nufus
maa bañ keneen lan moo tax sarax ñu tuddee ko sarax as sadaqa limaza sumiyat sadaqa lu tax ñu tuddee ko noonu ci arab sarax lu tax ñu tuddee ko noonu sadaqa maa bañ
mooy baat maa bañ ah sama seede yi de tey du dem seede yi bi ñu commencé tafsir ba fii ñu yem nga koy déglu la ilaha illallah bismillah dafay dàq fitna maa bañ as-sadaqatu lu tax ñu tuddee ko noonu mu ne li annaha tuakkidu sidqa al insan fi mahabbatillah li annaha naka moom sarax bi tuakkidu day dëgëral ci yow day dëgëral ci doomu aadama bi ne moom dafa bëgg yàlla nan lay wane loolu nan la sarax bi di wane ne yow da ngaa bëgg yàlla parce que bi nga koy joxe yaa ngi ko joxe ah parce que alal dafa cher alal dafa diis wax naa leen chaque jour tailleur yi poche bi fu ñu koy def ci côté gauche côté gauche lu fa nekk foo xam ne boo dugalee dégg xol bi gis nga moo tax ñu def ko foofu léegi boo dugalee loxo bi rek xol bi ne la attention billet yi moytul billet yi nga gis loxo bi nekk ci biir naañ ni billet yi walla waaw dëgg la de kee nee na gis ngeen mu ne nii waaye moytul billet yi moytul billet yi nga nekk fanaan ni di falax billet yi bu fekkoon ne billet yi dafa lem pièces yi ci biir nga nga koy lembat ci biir kenn du xam lan la gis nga mu yàgg fa torop ñu naan waa kii xaalis bi dafa bañ a génn déedéet xaalis bi bañul génn de da koy day taqale billet yi ci biir foofu daf koy taqale di tànn ñu ne falmaalu raxiis indahu amaama ridwanillah almaalu mahbub alal lu nit bëgg la fa ida anfaqa almahbuba min ajli man tuhibuhu fa hada aksar alsadaqa burhan xoolal kii di joxe lan lay joxe lu mu bëgg lan moo tax muy joxe lu mu bëgg ku mu bëgg moo ko joxeloo moom li mu bëgg mooy wane ne moom dëgg la bëggam yàlla dëgg la parce que li ngay joxe da nga ko bëgg waaye dafa am koo gën a bëgg mu joxe loola li nga bëgg benn xale bu jigéen Angleterre xaw ma Allemagne dama koy liir fan yi ñu ne dafa am benn waay bu mu bu mu bëgg jëndal ko château château la ko jëndal femme bi moo ko jëndal lool mu jëndal waa ji kër château bu rëy jëndal ko oto bu rafet nit ñi ne ko lii ëpp na yow xanaa lii nag da koo jar lu tax nga jëndal kii lii nag mu ne moom moo moom sama alal man ma moom ko dégg lu mu wax da ngeen femme bi lu mu wax femme bi nee na waa ji moo moom alal ji quoi mais moom moom moom moom waa ji comme nag waa ji moom alal ji mu jox waa ji alal ji nee na nag moom léegi moom moom moom waa ji moom waa ji moo ko moom moom la occupé waa occupé wul alal ji xëy na waa ji alal ji la ko toppee mu ne ko alal jaa ngi ni mais yow moom maa la topp gis ngeen fekkee nit moo mën a def loolu mastama ak allah nga bëgg yàlla kon loo war a def loo war a joxe soo bëggee yàlla est-ce que kon yàlla war na laa laaj am looy garder am looy xaar kon sadaqa lu tax ñu tuddee ko loolu mooy lan day wone ne yow bëgg nga yàlla moo tax nga génne lépp loo am joxe moo tax li la yàlla wax nga jox nga def loolu mooy wone ne yow da ngaa bëgg yàlla ah
yow ki ngay jox yàlla ma da nga yàlla ngay jóge yàlla boo ko joxee benn mu jox la ko kon nga yow sa bopp nga defal nga ne sa soxna ne la man de dama laa bëgg wala nga ne ko yow dama laa bëgg ne la jëndal ma foofu reer nga ne ko fekk yaa ngi yor xaalis nga ko ah mun ma ko de bëggagoo soo ko bëggoon nooy def da ngay dem bies bi jënd lépp ñëw benn waay dafa bëgg tëdd téléphone am sonné jabar yaa ngi hôpitalisé jabar ji ne ko ñëwal c'est urgent waa ji daw sans dàll duggee noonu ci oto bi dawal oto bi ba ci hôpital bi wàcc daw tëjul porte oto bi ndax yàkkamti daw daw yu métti ñëw yéeg ne femme bi lan la mu ne ko reyal ma mbóot bi ma ragal mbóot mbóot bi laa ragal waa ji rey mbóot bi bale ko génne ko fóon femme bi ci jëbi sàng ko daal di ñibbi ah parce que dafa bëgg femme bi gisee kooku ni mu bëggee yow ngay da ngaa bëgg yàlla nga dégg fajar ñu ne asalaatu xayru min annaw man ah xaaral tuuti waay xaaral tuuti waay xaaral tuuti waay yow bëggoo yàlla du dëgg kon sarax lu tax ñu tuddee ko sarax mooy li annaha tuakkidu sidqa al insan fi mahabbatillah ma qimatul infaq mbokk yi damay laajte lan mooy valeur u joxe law annaka la tuhibbul mal bu fekkoon ne li ngay joxe bëggoo ko ban valeur lay am ci yow law annaka la tuhibbul maal bu fekkoon ne yow bëggoo alal fa ma qiimatul infaq kon lan mooy représenté joxe bi ngay joxe li ngay joxe te bëggoo ko souvent su ma nee alal ñenn ñi dañuy tënk ci xaalis déedéet ba ci yére yi ngay joxe léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa am benn yére bu retraité benn waaye jóge dëkk ba ne ko waaw ah man de damay waaj a ñibbi mu ne jabaram kaay yow ñibbi demal ci sama yére yi yére bu orange bi sol xam nga solatuma ko génne ko est-ce que yére boobu bu génnee ci armoire bi boo ñëwaatee ci armoire bi di nga xalaat dara ah. et puis da ngay kontaan sax parce que da nga naan bi kii yow daf ma fi bloqué woon rek fesal sama armoire bi kon li nga joxe amul benn valeur moo tax lépp loo joxe te bëggoo ko doo ci am tiyaaba. yàlla ne lan tanaalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen mën a baax mbaax googu ngeen di dégg du mën a nekk ci yéen lu dul su ngeen di joxe da ngeen di joxe li ngeen gën a bëgg li ngeen gën a cher la waa ji añ ba desal yax yéeg xooñ bee ji des waa ji ne saaraañ mu ne jox ko jox ko tawal ci waañ wi bi ñu nekkee taalibe nekk ci daara ji di yalwaan reer daa mas a jot ñu dem yalwaani reer ñu ñëw benn kër fekk ñu ñu am ku fay sëy si meer yaa nga fële ca ëtt ëtt bay fecc ñu ne saaraa reer am ku ne dem leen ci waañ wa taalibe yi ñun ñu njëkkante waañ wi ñu ñëw fekk reeru séet bi ah ñoo ñoo ñu ne dem leen waañ wa ñu ñëw ubbi gis yu ñu yu ñu desal ak ak bu bees bu kenn laalul ñu ñu jël bu bees bi génn fa ñu toogoon di reer daal la ñu meer ya fekk ak ay bale taxaw ah ño- est-ce que ñun ñoo ko def ñun defuñu ko nag ñoom ñoo ko def parce que ñoom ñoo ne dem leen waañ wa comme ñoom ay fecc lañ daloon ah di teeru séet bi ñun ñu dem xam nga ne taalibe bi moom du gis lu ñu lu ñu laalagul muy jël desit ku xam taalibe kay loolu mënul nekk waaw idan ayuha al ahbab fa li annaka tuhibbu l maan fa lil infaq qiima li tax joxe am importance mooy yow li nga bëgg ngay joxe sa alal nga xoolal kii kii saraxe un million xoolal kii saraxe cent mille est-ce que cent mille boobu da ko aajoowul xoolal kii saraxe terrain xoolal kii saraxe teen xoolal kii saraxe jàkk tabax jàkk di ko joxe xoolal est-ce que waa ji bëgg ko bëgg bi mu ko bëgg moo tax mbir mi am importance mu am dayo bëgg bi mu ko bëgg su fekkoon ne bëggatu ko joxe bi amul benn njëriñ du ci am benn tiyaaba idan inna al insan xuliqa xalua ida massahu charru jazua wa ida massahu alxayr manuan illa almusallin al insan yuhibu almaal doomu aadama dafa bëgg alal dafa bëgg sax di ko bërile dafa bëgg di ko denc waaye dafa bëgg bis bu nekk loolu ñu naan rasid mooy crédit bi di yokk crédit bi da ngeen defe ne crédit ci portable rek la gars yi bëgg mu yokk banque yi dañuy bëgg seen crédit yokk société bi dafa bëgg crédit bi di doomu aadama ci boppam la mu denc dafa bëgg muy kan ci ñun moo denc ba pare bëgg li mu denc di wàññeeku kenn comme doomu aadama loolu tamit daf koy dal kenn ku ci nekk saa yoo génnee ci li nga denc joxe da ngay yéeg daraja ci yàlla tabaraka wa taala noonu ngay def ba jege yàlla te jaaroo fenn lu dul ci joxe al infaq lahu mulaabasaat kasira joxe dafa am ay mbir yu bëri yu mu wundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na rubba dirhamin sabaqat alf dirham hadis bu garaaw a ngi nii rubba dirhamin sabaqa alf dirham benn dërëm a ngi nii boo xam ne jiitu na junniy dërëm dërëm bu jiitu junniy dërëm loolu nu mu nekkee xanaa tey nag seedee dina dem bismillah mooy yéene bu sell
yéene bu sell bi nga am ci dërëm bi nga joxe waaw yow de loolu nañ laa jox benn benn dërëm la waa ji joxe dërëm mais dërëm bi gën na fële million bi waa ji joxe lu tax waa ji joxe million amul tiyaaba kii joxe dërëm am tiyaaba lu tax parce que dërëm bi yàllaa tax mais kee million bi mu joxe lu tax nañ ko wax ci rajo bi maa indi tonu ciment bi maa joxe ceeb bi maa indi nag bi maa joxe terrain bi maa maa maa amul benn tiyaaba benn waaye dafa tabax jàkk fu mu tourné maa tabax jàkk ji yemu ci loolu sax mu dem ci benn tëgg ne ko nag ma defal benn plaque or nga bind ci sama tur ñu def ko ci jàkk ci tëgg bi daa defar plaque or bi daat ci def turam ñu ñëw wékk ko ci jàkk ci mu tëdd guddi mu gént benn malaayika wàcc jóge kaw asamaan ñëw lonkar ci plaque bi wëlbati ko ñu daat ci bind turu benn jigéen mu yeewu génn këram ñëw wër jàkk ji xool plaque bi mu fekk ñu bind turu ndaw si nekk ci mu ne mais mooy la mu dindi plaque bi sànni ko mu delluwaat ci tëgg bi defal ma beneen ana bi ma la defaloon mu ne sànni naa ko parce que dama cee gis turu keneen ñetti guddi muy tëdd di gis plaque am boobu mu fa def ñu ciy bind turu benn jigéen mu yeewu troisième guddi bi mu ne waa dëkk bi nañ ko seetal ndaw soosu fu mu nekk ndeke benn dëkkandoom la ñu ne ko ndaw si ngay soriw la mi ngi fii mu ne jëli leen ko mu ñëw ñu jëli ko mu ne ko yow lu tax ma tabax sama jàkk ñu ci bind sa tur loo def ci jàkk ji te man xam naa ne yow mi joxe woo ci dara ndaw si ne ko ah wax dëgg yàlla joxewu ma ci de parce que awma lu ma joxe waaye benn bis day romboon naa fi maçon yi di jaxase ciment bi ma jël peel bi jaxase mu ne ko lu taxoon nga def kooku mu ne yàlla rek ndax jàkk ji yàlla jàkk yàlla la loolu donc ndeke sellal boobu moo tax yàlla mu ne nañ ko nañ tuddee jàkka ji ndaw si mu daal dem ci tëgg bi ne ko defal ma palaat bi nga bind ci turu ndaw si ma daal joxe xoola kii lim def lépp kee lan la def waxul damaa joxe birig de waxul dama joxe saaku ciment waaye ne dama romb maçon yi di jéqi ciment bi ma jël peel bi jéqi waaye xoole lim def lu tax mu garaaw mooy yàlla rekk a tax kenn taxul yàlla rekk a tax moo tax su yàlla taxee ci li ngay def rek say tiyaaba daal di bëri ixwatal iman joxe ci yoonu yàlla dafa am mbir yu bëri yu mu làq bu njëkk mooy al ixlaas yarfau qiimata al infaq gis nga sellal ci yoonu yàlla day day yokk li nga joxe da ngay joxe dërëm sellal gi yóbbu ko ay conteneur da ngay joxe kilo mburu benn waaye dafa nekk ci sukuraat ñu dégg mu naan yaa layta kaana kaamila yaa layta kaana jadida yaa layta kaana baida ñett aka neexoon mu sori waaye aka neexoon mu mat aka neexoon mu mat aka neexoon muy bu bees ñu ne ko bi mu ximmilikoo ñu ne ko waa yow luy aka neexoon mu sori mu ne dafa am benn waay bu réeroon am ku muy wër mu fekk ma sama kër ma sol samay dàll jàdd koñ jàddaat koñ nekke ki nga doon seeta ngi nii kii la loolu ma ko dimbali ba mu gis waa ji yàlla tabaxal ma ci benn sato aljanna mu ne aka neexoon mu sori lu tuuti laa jox ñu fay ma sato aljanna aka neexoon muy mu sori kon su soree ñaata kër lay am ñu ne ko luy aka neexoon mu mat mu ne benn daggitu mburu rek laa waroon ba ngoon bëgg ko joxe bëgg ko ndogoo benn waaye ñëw ma jox ko ko yàlla tabaxal ma benn puuru mburu ci biir aljanna mu ne aka neexoon muy kilo bu joxe woon kilo kon lu muy am ku joxe daggit bu tuuti ñu defal la benn puur ci biir aljanna allahu akbar ñu ne ko waaw lan mooy aka neexoon mu bees mu ne benn waay bu amul woon yére laa gis daf yaramu neen ma dem ci sama armoire yére yi ma fa dese woon tuuti ma ñëw solal ko waa ji mu ne après li ma nekk ci sukuraat yàlla won ma ci biir aljanna ñu defaral ma benn usine boo xamante ne sundus ak istaq rek lañ ma lay sol aljanna yowmal qiyaam mu ne aka neexoon mu yére bu bees comme yére bu màgget laa joxe am lii lépp kon su beesoon nag moo tax wax naa leen ne joxe ci yoonu yàlla da ngay joxe lu ndaw loolu nga joxe sellal yóbbu ko mu nekk mu am qiima waaye almaal alqalil yarfau qiimatul infaq alal ju tuuti bu nit joxe alal jooju mooy yokk alal ji ba mu am jëmm ma naqasat sadaqatun min al maal yeneen bi nee na sarax du wàññi alal al an tunfiq al maal wa anta saxiihun saxiih yarfau qiimat al infaq kiy joxe bokk ci li yokk alalam mooy bi muy joxe mi ngi wér mi ngi bëgg alal ji mi ngi ko tal soo bàyyee ba feebar xam ne suba da ngay dee alal ji mënatul dara nga naan dañ ci saraxe waaye nañ ci tabax jàkkawaay te xam nga ne yow da ngay dee alal jooju amatul benn njëriñ ci yow waaye ixwaan yi mbokk yi am na mbir yoo xam ne aussi nañ ci bàyyi xel wa hunaka aydan awamil kasira yuqallilu qimat al infaq am na alal joo xam ne ay mbir yoo xam ne mi ngi fii soo joxee li nga joxe lu muy ngande ngande ngande ngande amul benn valeur ci yàlla lu tax bi ci njëkk mooy arriya ngistal dangaa jëndal koñ bi yépp ceeb kër gu nekk nga dugal fa saako loolu baax na wala baaxul baax na waaye après ngoon jot ñëpp daje sa kër nga daan reer ngeen ba suur est-ce que xam nga bu doon du man yéen ñëpp di ngeen dee amatul njëriñ amatul njëriñ amatul njëriñ perte nga waaw waaw li waa ji doon wax maa tax ngeen di lekk yàpp gars yi dañuy xiif gis ngeen de damay rey téeméeri gëléem téeméeri nag téeméer téeméer téeméer téeméer ya- maa tax ngeen lekk aca lekk leen na jeex de na jeex ndeysaan amul njëriñ amul njëriñ kuy joxe na joxe ngir yàlla boo joxe woon suuf sépp ba mu jeex takk fekk du ngir yàlla gis nga ni muy rëy rëy rëy amul njëriñ kon dafa am mbir yoo xam ne dafay yàq joxe ngistal ci la bokk am na leneen luy yàq joxe mooy nganda ngandalu joxe ba pare ngoon jot nga sol sa ngandim grand mbubu je- naan nii ñu naan waaw mu ngi ne la kay nga naan nii na ngeen def jot ngeen ci waaw jaajëf waay jot ngeen ci de ah, eh, egsi na ci yow yow lu ci sa yoon joxe nga demal tëddi egsi na egsiwul sa yoon nekku ci xanaa du yàllaa tax ah ngay xëy di contrôler damay contrôler sa wàll ñëw na sa yoon da nga joxe demal nga toog dama yooyu yëpp day yàq mooy nganda ngandalu fëgg dënn wane ne yow la da ngay perte bu doon ay milliards perte nga amul benn njëriñ alal ji dem na pënd ak poussière la yowmal qiyaam ñu àtte la ci mbokk yi borom bi nee na wama anfaqtum min nafaqatin lépp ngeen lu ngeen mën a joxe min nafaqa ci joxe nu mu mën a toll aw nazartum wala ngeen nazar min nazarin ci benn nazar bu mu mën a doon fa inna allaha yaalamuhu yàlla xam na ko wa ma lizalimina min ansaar
benn waay bu nekk ci télé bi la lees Mhm.
ba jékki-jékki mu ne sama diw sama ma ne diw waaw
moom moom moom moom moom moom may moom may moom may invité ndaw tey diw moo may invité ndogu tey
maa ngi koy sant diw maa ngi koy kii maa ngi koy maa ngi koy fàttaliku ci émission bi waaw Eh, ak diw diw moom moom ma invité woon ndaw daanaka kii maanaam li bari ni daal moom day woor bis boobu
waaw yooyu baaxul loolu lépp day yàq même tur waa ji ngay wax sax soo moytu waa ji da nga koy lor parce que dina ci gis boppam law anfaqta nafaqatan fi gayri mahalliha fa anta zalimun aaya bi li ci des chaque jour dama leen di wax ne bu ñuy jàng alxuraan li tax chaque jour ma naan leen nañ leen jël benn aaya wala mooy pour ñu bàyyi xel aaya yi aaya tey bi fan la jeexee wa ma lizalimina min ansaar lan mooy relation wu yàlla wax mbirum joxe ba pare daat ci teg ne tooñkat yi ëllëg yowmal xiyaam amuñu ku leen di dimbali maanaam baatu tooñ bi yàlla dugal ci aaya bi ban relation la am ak aaya bi li ñu doon jàngale may laaj ku ko tontu am seede mooy ñu joxe ba pare di gànd gànd
ah bismillah
mooy ñi nga xam ne xam nañu ko mais ñu ko joxe ko ñi nga xam ne am nañ bañ a joxe keneen
mooy ñu joxe fàcc ci booy ko loxo joxe pare boore lor
mooy ñu joxe si lu dul yàlla ay tuwaan gànd ñi joxe ci lu dul yàlla ñoo ñi- déglu leen bu baax siitu aaya bi mu ne maa maana azzalimina huna lan mooy maana tooñkat yi fii maa alaqatu zalimina bil infaq lan mooy relation tooñkat yi ci joxe an naka yow mii di joxe iza anfaqta riyaan fa anta zalim boo joxee fekk yaa ngi ngistal yow tooñkat nga ndax yàlla dalaa waxoon joxeel joxeel te bul ngistalu comme joxe nga ngistal nag ngistal gi nga ciy def tooñkan nga fa anta zalim annaka iza anfaqta wattaba'ta ma anfaqta almanna wal aza fa anta zalim yàlla dalaa waxoon joxeel mais bul ngand ngandul nga dem joxe boole ci ngand ngandul yow tooñkan nga waaw boobu mooy bu ndaw bi yàlla moo ne woon joxe leen nga dem di joxe ñan nga jox waa Sorano fa anta zalim joxe leen ñoo jox waa stade mbër yi mais fa anta zalim yow tooñkan nga joxe leen koo jox nga dem tabax baar mais fa anta zalim joxe leen koo jox nga dem organiser cholédéra organiser soirée organiser super ndaje ba pare na maa joxe waaw Dakar na door pa bu kenn nelaw na yëngu mais fa anta zalim yow tooñkat nga donte ne joxe nga gis nga ndeke am na ñuy joxe mais ay tooñkat lañ ci li ñuy joxe ak ci li ñuy def léegi nag si jógee bi boo fekkee ne da nga fekk dañuy joxe yow boo ko jëlee nag maanaam maanaam su ñu joxe ku bon di joxe ci lu baaxul wala ku baax
loo ci am ko waaw xam nga ki ñu jox moom day jël parce que alal moom am amu alal mooy ku ñu may day jël ku ñu sarax day jël ku donn day jël donte ne fi nga ko jëlee baaxul may da ngay jël parce que da nga kaa donn wala dañ la ko jox mais kii joxe ci joxewul jox bu baax kooku zalim la moo tax yàlla mu ne wa maa li zalimina min ansaar kon nañuy xool ni ñuy joxe nañuy xool ñiy joxe képp ku joxe fekk ay bànneexi bakkanam a tax waa ji ñëw dugg ci baar tegale keesu sàngara yi ne na ma sut ñu teg kees yi ba mu sut ko mu ne maa maa bu kenn fay kooku joxe na wala joxewul joxe na waaye wa huwa zalim waaye dafa tooñ ki ñëw ci koñ bi daa di may xale jigéen yi xumbal fay joxe na wala joxewul joxe na mais fa huwa zalim kooku tooñkat la kon moo tax yàlla mu ne wa ma li zalimina min ansar te képp kuy tooñ nag képp koo xam ne tooñkat la ixwaan yi fa haza zalim tooñkat bi soo fa yu aaxib yàlla dina ko mbugal lam yajid ahadan yamnau anhu iqaaba allahi azza wa jal ëllëg yowmal qiyam amuñu kenn ku ko mën a défendre ci kanamu yàlla moo tax yàlla mu ne wa ma lizalimina min ansar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Salaam.